mais saa da nga ko may café. ah sa waay café laa ko may mu ne ma café gi mooy lool. saa waay wax ji moo kii laa ñu war a. barke Seydina Muhammad xaaral ba fu ma jóg. kii banaan nañ ba bët set eh, naa moom. billaahi wallaahi bokk nañ benn laal banaan ba bët set. mais waruma ko jël café may ko ko mu ne ma doy na lool du yoon. da ngay wóoloo milliard man da tax ñu bëre. te maa ngi doog a mais am na yoo xam ne bu ci dugg affaire yu bëri yii ngeen gëm. war na sëñ Tuubaa. waaw dafa tàng. dafa tàng maa mu ne ma café du ma rom barke lem fa naan kere ci mat na deux cent mais lu may ñëwee mais mu ñëw ñëw ma yor café gu tàng ne ko am mu naa ma doy na mais est pare naa ci moom kii kay nii maa ngi moom fi mu ne nii bu est bu ko gars yi doxee sax lu ne mënta am lépp mën a fi mu ne nii may café muy daw koo gis nga ñime na la Babs. est-ce que waa double est-ce que ragaloo may. ah wax dëgg ah, eh, saa yi moom mooy loolu. <laughs> ah ma laa may kafe. <laughs> daal nga bari. Ah, saa gis noonu la. ah baax na. kafe laa la baax na. mais mais mais looy bañ ci kafe bi. Ah. ah looy bañ ci kafe bi. dafa tàng damay doog a eh, mais damay toog yow chaque jour ma kafe du ma romb. dafa tàng la ma kafe du ma ma xam ne kafe nga may naan jox nga ne ma ma non man mbër yi barke Serigne Touba man bu dee yéeg ma du ma ma daan nit du ma daan kenn. parce que man naagis lamb ja daal buy waaj moom jàppal ne amul jege amul xool ah. ku ne ci jàmm mais ñii ay ñi yor galaaj ji fitti si nag danoo xaw a garaaw de kii de yaa bëgg wax waaw double man sama lu ñuul <laughs> non saa dama nekk ci marché bi moo tax marché ñëpp ci la ñu ne te man ma non yow. <laughs> marché ne. yow maa ngi nii ñàkk ba tooy. yow saa yi bu nu place nga toog ah. maa fi mu maa ngi may maa ngi ci saa yi sama patron. <laughs> yaa ngi may dugal. <laughs> saa yi mu jox ay ay ay jaar ma koy jaay ci gi. Ah. waaw. ma ñëw tey di ko ay ay mu ne dama ko teg di jaaro yi. jàllale daal mu ñëw teg na ma ci axe. instant nag jàllale jeex na. nee naa ko nag instant bii na xool leneen lu mu teg sama loxo. mais man damaa dégg sax mu wax léegi wax nañu ci bi wax dëgg sax mu wax ci affaire bu waaye luy seen diggante combat la waaye luy loolu. ah nee na danaa jox café naanoo café gi naan vraiment tàng. Ah, mu ne yaakaar ne kon mën ngeen a bëri léegi. non saa yi day saldel rek non day may tooñ ak bëri moom duñ ko def. saa yi day saldel rek <laughs> non non loolu mënul nekk. saa ay bool bool lañ fi. yow bool bool saabu saa bool bi. ah waaw. ñoo ñun ñoo bokk benn. bu saa yi daal saa yi daal xool ci wàllum waxu làmb nañ ko tegee ne ci wàllum commerce bi la ñu wax. bu ne làmb ji day xaar. ba jamono neex. mais ana seen i masque yéen waaye masque lii rek la ah duubul ni masque lii masque ngi nii protection la nii. ah, ah waaw. Mbaye yow ana sa masque. non man te ma masque a ngi nii sama poche mais ma ko dindi léegi na am kuma client yu ma doon waxat boo wax ak gars yi dañ koy dindi mais am na sa vidéo ma gis dem sa defe naa statut naa mbay fecc boobu sama néeg laa nekkoon nii rek dindi stress beeg yooyu man xam nga ne ci yooyu laay dox. dindi stress tooñ gars yi pour bëgg gars rek kese. mais ku foog ne comédien laa nag yaa ngi nax sa bopp ku ma ci ne niip di nga xam ne du ma comédien. gars yi dañ bu ma mën naa ci côté bu ne. man bu ah. bëre bi ñëwee ma bëre bu bu bu fecc mi ñëwee ma fecc. nga waaw loolu moom yàlla dimbali na yow ragaluma lool. waaw dafa leer. am nañ jàmm sama ñaari duuseen jox ko. ne ko lii la. mu dem jaay ko mënuma koo gis ba korite i am semaine bu teg bu ma ko mu naa ma maa ngi lay indi xaaj bi gisuma ko ba léegi nee naa ko dama la doon jox pour pour <laughs> essai la rek fi mu ne nii nag naa la saye boo dee sama quatre mille francs quatre mille quatre mille ak ciw loosam billaay wallaay taala quatre mille bëriwul mais dama ko doon essayé fi mu nii bu weer seen mën naa ko laal lu ëpp lool bu diggee ma compter koy jiin kum ko walooru cinquante mille ba cent mille kon daal yow làmb bi ñëw na man moom fi mu ne nii moom sama yoon ci làmb bu làmb ji bu neexee bu mu tijjeeti. Ah, déet làmb ji bu leen neexee na tëj. man maa ngi xëy maa ngi wàcc chaque jour maa ngi am weccet na làmb ji tëj danoo son sax noppalu ci làmb ba beneen at. <laughs> waaw ah non loolu moom kenn du ci ànd <laughs> bu baax. Ah. position baaxut. Ah. parce que position baaxut. position bi mu taxaw moo baaxut. man chaque jour bu ma damay xëy liggéey si lal job ne ci bagage yi. moom nag fi mu taxawee baaxut. am na mbër yu bëri nag fi ne nii. ay waa jële xëy ñu amuñu xëy. xanaa xamoo Alioune Sarr doon na wax lu garaaw te gars yi bàyyi ñu ci xel. doon na leen wax naan lamb du mé du métier. da ngay wut métier liggéey yi beneen ba pare. Hmm. door a ne ci làmb à part bi danga ko war di kii nii rek. Père Max Mbargane dégg naa ko lu leer la wax. làmb ngegenaay la rek. foo nelawee mën nga koo féel mu demee ci côté bi. nga tëdd ci matelas bi. lu leer laa lay wax làmb ak ngegenaay yem rek foo nelawee dootoo gis ngegenaay la. mën ngaa tëb rek geesu yem sa bopp dootoo xam foo di gegeen woon. parce nelaw nga